بالغفار المصطفى من سنه أستغفر باس فيا أيا سوداني جملة تغلو موسى متاك بموسى منو تاني جمال من جمال إلى رياض waaye loxo ca kaw ñu màgg si na Muhammad waay الجمال أستغفر الباسل فيا ñu gëm ak yaakaar ak ragal ak suñu tubaab lañ koy def. donc gëm ak wóolu yaakaar ragal suñu tubaab lañ koy def. loolu xam ne jotaay bii. waaw bu ndax yoon wi métti na. bari na ay jànkonteel tar na. waaye kenn ku ci nekk da jël sa yitte jëpp teg ni suñu tubaab coono ba mu dojoon ngir ñëw fii. lu toll ni ca tarafatanaay ni jëfagoo kon nag yal na yàlla faj aajo yi mboolem am teew jotaay bi te xam ni jotaay bi lépp adduna defar adduna gu àllaax suñu xool sedd na trop. ñoo ngi fan nii. Baye Cheikh ñu ngi fan. waaw fii ñu nekk mooy dañoo jub dëkk bi ñu naan ci Banga nga xam ne ci la Mayomba bootu nga xam diggante moom Mayomba war naa toog ci téeméeri kilomètre ak fukk ak juróom-ñeent. 119 kilomètres. waaw xam naa ni 119 kilomètres xam naa ni bu ñu déparé fii rek xam naa ni fii ñaari waxtu lu ko manqué tuuti sax. dinañ war a àgg Mayumba incha allah. incha allah. waaw ak saa waay yàgg lool ànd merci. Merci pour cet accueil et merci aussi d'avoir euh, hébergé pendant cinq ans notre aïeul. Euh, C'est une fierté pour nous euh, de venir euh, sur la terre qu'il a accueillie pendant cinq ans. C'est historique ce que nous vivons aujourd'hui avec euh, l'arch euh, avec l'évêque euh, qui vient accueillir la délégation qui revient de Touba. Vraiment, merci, merci, merci infiniment à, au, à la population de Mayumba, en passant par euh, la, les autorités municipales et l'évêque ici présent. Je vous remercie. Merci. pendant tout votre séjour ici. Soyez les bienvenus encore une fois. Merci beaucoup. jëfati euh, mbokki télévision euh, Touba TV mbokki télévision euh, Tawfekh Production ñu ànd ko sëñ Mourtala boobu ba tey gis ngeen ñu leen di wan di yoon wi fi nu jaar mu metti trop mu tiis doom yoon woo xam ni yombul sori na metti kawe na ay montagnes yoo xam ni tey boo fi awee rek di nga xam ni tubaab bi euh, bëggul nit ku ñuul parce que ñoom lañ waxoon ne nit ku ñuul dafa mel ni doomu limon pàccalal ba mu jeex rek nga sànni loola lañ doon def ñëw fi Afrique jàpp suñu royaume yeeg suñu kilifa yi di sànq waaye nag daj dëpp gii leen bañ indi ko fii euh, bu doon koo xam ne mënal nañ ko dara duñ accès ak ñun fii waaye liñ mujj mooy mu mel ni xalu sawara ci seen loxo bañ dellu si ko ci réew ma ba tey jii bu leen fàtte suba mooy bis bi sëñ Touba génnoon àddina ci weeru euh, français le 19 juillet ci la ñàkkoon sëriñ bi seex Cheikh Moustapha jël ko yóbbu ko boo seetloo itam at mu bees mi itam ci lañ yàq euh, ci la ci la sëriñ bi làqu woon jaam ñi itam muy tàmbeek màggalu Daaru Xuddoos nga xam ne lépp rek ci mois de juillet bi la kon ñun bu ñu fii ci Mayumba nga xam ne fii moo waroon a doon loola waaw li tubaab bi bëggoon bu amoon kenn du ne sëñ Touba ñu ngi koy màggal ca Touba bi bi kenn ko wax fii lañ koy wax da ngay ñëw rek ñu wan la jal ne la fii la fii la mujjëm waaw bi tubaab yi bëggee liñ liñ am li ñu bëgg biñ ko amee fii lañ ko mujjee def kon loolu moo doon am kon nag suba nag incha allah il faut na def fii màggal ci Mayumba muy barab bu sori barab bu sori murit yi maa ngi wax barab bu sori saa su ne di ko bamtuwaat ki xamul day foog ne rek jóge Dakar dem Tamba yooyu wala nga dem Mali la waaye fii kenn mënu la koo misaal te ñëwu fi fii du luñ lay misaal noonu rek di la ko wax noonu mais fii dafa doy waar dafa doy waar waaw maam kenn mënu ko wax ci ay rajo ay télé naan di bi sëñ bi demee maa ba mel ni rek nit ku jóge Sénégal dem France wala nga dem Amérique wala nangam fii dañ ko fi indi woon pour sànq ko parce que boo seetloo nii dex gi mi ngi ko frontière ak Congo Brazzaville te bu subaa dinañ leen ko gën a wan guddi gi la ñuy doog a agsi xol yi neexul nit ñi sonn nan waaye lii rek la xam naa ni euh, euh, kon yaakaar naa ni euh, lu fi am rek dinañ leen ko gën a wan ngeen gën a sant Serigne Touba seen télévision. Tawfekh Production ci liggéey bu am solo bi mu def ci caravane bi ñu ci sant sëñ Touba baax a baax préparé nañ fa ay plateau yu am solo borom xam-xam yi commencé woon waxtaan wi fole ca Libreville bu suba incha allah bu fi nit war xam rek ci li ñu a xam ndax kon kon daal di ñëw sëñ xaa eh, xam naa da ngay ñëw rek eh, wax nu yoon wi yow it noo ko noo rek bu bu eh, daam kii hmm. dafa am baat yu ma lay neet rek yu dalal xel rek waaye du ma ñëw ci yëf yi sax. Hmm. sëriñ bi ci net lu wér nag yu am silsila yu wér nag sëñ Aliou sëy sëñ bi ñëwee njaareem dafa bind aw kayit jox ne ko boo ko xool léegi feeg yóbbuñ ma Tuubaa am sëñ Aliou Seye da koo defoon ndomba bi mu déggee ne sëñ bi ñëw na Tuubaa mu tekki ko sëriñ bi bind ci ne. ki bind araf yi dana sax njaarim fukki at ak juróom maanaam nim mu woon kanamam laa bëgg a wax fi ne nii bim euh, am na bis bi nekkee gànnaar mu ne de euh, feek feek déwén firnde yi ma leen di jox ci ne man mii fa ma jëm ëllëg ak yéen ñi ma topp fa ma leen jëmee ëllëg ni ma leere ne sama rëdd baaraam yi dama leen jox firnde fekk déwén dañ jóge gànnaar dem jolof lii gànnaar la ko te boobaa fekk déwén kenn du faatu te ba muy wax loolu am na koo xam ne nii mi ngi gànnaar feebar na feebar boo xam ne ni dañuy xaar ne mu noppal ñu wax ko sëñ bi bañ demee xool ko mel ni dara mos koo dal baneen bi ma ci teg mooy sëñ Maxtaar Binteloo am na bi sëriñ bi woo ko ne ko maxtaar neel fere yi nañ sant yàlla mu dem ci taalibe nee na sëriñ bi neen ngeen sant yàlla ñu ne ko ñun de bu ñu sant moom la sant ñu ñëwaat mu demaat ñu mu ne maxtaar lu ñu wax mu ne ko ñoom nee na bu ñu sant ci yow lañ koy yemale mu ne leen de sant ma ci ko xam yàlla mooy sant yàlla kon yu mel noonu nag ku am ku mel noonu maanaam mbir boo ko amee tax xam ko rek maanaam ci ci ngay ci ngay mën a dëgër ci ngay mën a dëgër ndax moom daa xamoon boppam xam li ko yàlla defal mu nangu ko te yoral ko boppam nag nga gis mag ñoo xam ne mën nañoo àtte jamono ci fànn yëpp ñoom ñëpp dajaloo jox ko seen bopp te lañ yaakaar ci moom lépp ma nga fa ba am leneen loo xam génnee goo ko te xamuñ nu mu toll ak fu mu yem. incha allah <laughs> euh, kàddu yow la buso noo ngi sant bu baax a baax taxawaay bi. Euh, yitte yi nii nga def sa wuy jur wu lool waaye it looloo la war ndax sa maam ju tëdd ji lañ indi woon fii sa maam it ko wuutu woon ndax sëñ Mbàkke Bousso dafa joué rôle bu rëy ci yoonu mu Mbousso be Mbàkke Mbousso be rek a fi ne te yow foofu nga nekk yoon wi ñu jaar coono yi ñu càggonteel nga xam ne daan nga fi ñëw sëñ bi lan nga ci jànki dëgg-dëgg. waaw sëñ Maam Mor li ma jàng jàngate rek mooy sëlim bi dañ ko indi woon fii ngir tooñ ko indi ko fii ngir ceeg ak tooñaange mu bëgg a saxal dëgg dëgg googu nag ñoom ñu fas yéene taxaw ne doo fi sampe ndax ci barab bi ñu taxaw tey jii muy barab bu tedd fi la woon indi dëgg bëgg ko saxal ci boppam saxal ko ci mbooleem jaam yàlla yëpp xadamtu baatilan bi xaqin fa saxaq li fi nekkoon ci ak lëndëm ak ci tooñ ak ci fekk fi ñoo xam ne gëmuñu yàlla mu bëgg a màbb loolu ñoom ñoo ko dox màbbe waaye li ñu xamal ne rek dëgg googu moo sax tey fii mu sampoon bantam yi ñu koy sempi di ko xatal di ko tumuraankeel di ko mettital mu ne dañ na fa lu nekk di fi di nodd ñuy dindi bant ya tey nag mbooloo ak njabootam ñoo ñëw njabootam ñoo di leen teeru ànd ak ñoom gàtt na leen ñuy yëkkati fi kàddu yàlla di jàng alxuraan di jàng xasiide di di ay rakka kon dëgg googu mu doon saxal moom rek sax na tey lépp lu noonu ak caax ak neen daanu na loolu lañ ci yëgee ci suñu yoon wi di sant yàlla bu baax tey xam ne yàlla rek moo ma talebal yàlla rek moo moo moo mat a liggéeyal soo ko liggéeyal rek bala fay rek nga xam ne fay na la lii fay fay suñu borom la ko yàlla fay. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf xam naa duñ ko téye lu yàgg dama bëgg kilifa yëpp noppalu ji ba noppi bu bu subaa euh, cérémonie yaa ngi dem waaye itam sëñ Mourtala mi yor euh, liggéey bi ak sama jëwriñ euh, sëñ pap ñoom ñu dem dallu waaye bu ñu xëyee rek nekkaat ci liggéey bi lu fi mës a xew rek bu soobee yàlla li ci murit yi xam ñu wax ko ndax am na ci loo xam ne des na ko misaal waaye am na ci loo xam ne làmmiñ du ko laal. am na ci mbir yoo xam ne it du feeñ ci duniyaa ngir mbootu yàlla yamu làmboog may ya waaye suñu saaka dana boo ko gëmut yëral jasaaw sakkoor jawaabu Abdullahi loolu moo wóor seen mbokku taalibe Mame Mor Mbaye yoonu géej gi ñëwal leen fii ci Mayumba ànd ak euh, Tawfekh Production ànd ak ci ca kanam Mayumba TV ak seen télévision Touba TV. ak yeneen site internet yi guy mbind ñëpp rek ñu àndandoo ko gir feseenee wan muri yi waajtaayu màggal gu mat sëkk ñu fàttali nit ñi itam ne leen suba 19 juillet ci la sëriñ bi làq woon jaam ñi en 1927 19 juillet ñu ñëw tey 19 juillet 20 2024 war a màggal fii màggaluk Maayomba te nga xam ni ci yoon fii la waroon a amee kon loolu yëpp rek euh, man santaat Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba est-ce que borom Touba sëriñ Tuubaa amul moroom asalaamaaleykum wa rahmatulah. wali raadawum duran wali galamal janba aqaasani al anaan min kaydi man xala wasaaraka naaril xilli lii baru maa yumba muy tawfeex ju rëy